tey nag ñu ñëwoon nag Touba ah pour euh, xool ñi nga xam ne formé woon nañ leen ñu formé leen ah ëpp nañu juróomi téeméer yoo xam ne amoon nañ euh, ay formation donc tey dañu ñëwoon jox leen ay seen titre de seen attestation pour que mu leen jëriñ mais au delà de ça waxtaan nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkaat ba léegi wala ONFP dina ñëwaat pour former waat leen ndax loolu ko état Sénégal sant loolu la ko ministère bi nga xam ne Mariama Sarr moo ko jiite loolu loolu la ko xam nga bu ñu tàggatee ba pare léegi il faut ñu xalaat xëy. loolu la ñu accompagnement ONFP nag am na ci benn bureau boo xam ne ci biir ONFP boo xam ne insertion dong mooy liggéeyam bureau boobu am na liste ay ay liste entreprise yoo xam ne euh, bu ñu tàggatee dinañ jéem a xool ban entreprise lañ leen war a mën a booleel. loolu aussi bu fekkee ne jafe na ndax mën na jafe aussi ONFP dina travailler ak waa DER dina travailler ak waa FONGIP ak waa 3FPT ñi nga xam ne ñoom seen rôle mooy ñuy financer donc bu ñu tàggatee pare waxtaan ak ñoom ne leen diwkat dañ ko tàggat ci lii dañ ko dañ bëgg léegi nga financer ko ci lii.